Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni bis bii bisama li ko waroon lépp def na ko fi lépp lu fi teraanga indi na ko lépp lu fi ndox mu ñu naan indi na ko kon Cheikh Ahmadou Bamba yàlla na la yàlla fayal boppam ci barkeeb maam Thierno mi nga xam ne moom rek nga gëm le général vous avez la parole Mamadou Racine si nag bi ngay bëgg a wax la sama xarit dugg si sama genn wàll sama soppe di Mamadou Racine si di Pape Mansour doon na ko tudd léegi di ko jox ay cant ak ay ngërëm président Racine jërëjëf bismillahi wa ala millati rasul wa man hajil xadim ngeen baal ma ndax faw ma jàkkarlook sang yi ci sama gannaaw bu fekkente ne ay boroomi xam-xam ba noppi di meññatum ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul danga nekk ci seen biir dafa am loo war a jiital ci ay teggin dëgg la kuy wax fii ngay taxaw jàkkarloo ak caméraman yi waaye moo tax ma ñaan li may ñaan ndax bëgg a jàkkaarloo ñoom bu dul dara itam jàkkaarloo gi képp ak ku ci nekk la nga fanaanoo ak la ngay xëyee ci ku tedd ki ku tedd ki bu ko neexee la cay leer yépp man mii ma jot ci sama wàll kon ci turu ki fii kilifa la ñuy waxe muy Cheikh Abdoulahil Ahad ibnu cheikh mohamadul fadil ci turu ki fi teewal sëriñ abbas xalifa cheikh ibrahim di cheikh mohamadul basir bu sëriñ abdou xuddus ci la ñuy waxe ñun fii amuñu fi kàddu ñetteel ba mooy cheikh abdou mais sunu jarbaat te nekk alwazir ci wetu rais bi sunu xarit président Macky Sall bu dee mën a personnellement su ma nee sunu xarit man la cay sama wàll ñépp xam nañ ko mooy jërëjëfe Sëriñ Bàmba ja ca Mbàkke Bawol duma ma ci di ko wax leneen nag leneen la yeneen nit yeneen la waaye lii nii la tëdde sànq bi ma daataan jóg dama tombe ci benn bëyit ca wakkaana xàqan ku tedd ki di wax na najayta man biya taallaqu maha min ashayatini fa shukuri yasmaha mu koy wax boromam kon saytaane yi man mën naa leen a wax ni ndaje mi bokkuñu ci nañu dem ca ñay weddi yàlla te ñooña ñun bokkunu ci lu xew rek ñu jiiñ ko seytaane te mu nekk quatrième position alxawaa nekk fi an nafs nekk fi ad dunya nekk fi waaye lu xew rek ñu ne saytaane la dëgg la ibliis bari na doole am na ay représentativité un peu partout dans le monde kenn ku nekk ci doomu aadama yi wala nga nekk jinne foo taxaw seytaane am na ko fa taxaw ca sa wet loolu ñu gëm ñépp dañ koy gëm waaye xoolal li ko tedd ki wax foofu ku aju ci moom ñi aju ci ñoom ñépp ñi aju ci moom moo xam nit nga moo xam jinne mucc nga ci seytaane yooyu seytaane nit la ñu koy gis ak ku dul nit duñu ko gis waaw ndax nit li tax muy nekk seytaane seytaane day dem dugg ci biiram signé ak moom benn pacte d'accompagnement ci am xelam dans son esprit noonu la seytaane di nekk ci nit ba nit ka mujj doon seytaane ñooñu nag waa kër Serigne Touba bokkuñu ci te itam sëñ bi ginnaaw bu ñu nuyoo maam Thierno mais nga xam ni ibnu Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifa bi E, nuyu sëriñ Cheikh mi toogoon fii léegi ak sëriñ Mohamadan bu sëriñ Abdoulahat ak sëriñ Abdou bu sëriñ Baye Cheikh Khadi e, sëriñ Koso xam naa ni sax jóg na waaye li nga xam ni moom laa naroon na wax jëmale ko ci sëriñ Mountakha loolu sëriñ Bassirou Abdou Khoudoss laa koy boogan waaw loola nag wolof day wax wax ak wàqet wàqet laa lay buggan ngir boo dematee sëñ ba ci sëñ ba nga ne ko nee na lam la waxoon nee na wàqet boo ko waxee rek sëñ bi dinaa xam lu wàqet jooju lu ko waral waaw ndax dama ne ko woon dama ko wax waxi daanukat ni ko nangam su ma ko amul dootoo ma gis loolu nag dem ba nar maa indil problème te du ma ko nangu léegi nag boo demee ni kon nee na la mu la waxoon wàqet ndax dama koo nam dama def yëfi daanukat wax loo xam ne mënuma koo gérer mu ëpp ma doole léegi nag loolu nga may lijjantil boo fa demee ne nee na moo ni wàqet waaw loolu dama koy lijjanti ba mu leer parce que mënuma koo di gérer waaw ndax dama koo namm jàkkaarloog moom loolu sëñ bi nga baal ma rek loolu rek laa bëggoon nga di la ko waayaan nga dimbali ma ci mu des lan Iblis sa bari doole. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen si biir réew mi wala si biti ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ngir mën a xam li xam